wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa man iqtada bi hadihim ila yawmiddin mbokki jullit ñi topp ci jotaay bi ak ci yeneen barab te jaare ko ci jumtukaayu xarala yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di jàkkaarloo yéen nuyoo bi ak ziar bi ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi jëwriñu yoonu murit jamono yi ñu toll ñu koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd lool te lépp ànd ak wér ba naal yi mu man koo eggale ci ànd ko ñu ànd kook moom ñu bokk ci ñu ñëpp am ci ngërëmul sëriñ bu mag bi di nuyu tamit kilifa ëtt bi di sëriñ Abdou Samad Mbacké euh, mi nga xamante ni moo tax jotaay bi am ñu xam ko ci yittewoom ci lépp loo xamante ni dafa laal diine ji laal euh, yoonu murit euh, jotaay yi ñuy amal nag tey ñu ngi koy amale ci lay ni bis bi tey dëppook fukki fan ak benn ci weeru novembre di weeru tubaab ci la ku tedd ki bàyyi ko woon ci liggéey boobu mu demoon ca géej ga Euh, dellu siwaat senegal ci atum 1902 mu doon bis boo xamante ni bu egsee war nañuy am ay jotaay euh, mook yeneen bis yu ni mel ngir fàttaliku jëmm ja fàttaliku liggéey bi fàttaliku it jeexit yi ngir ñu mën cee roy ci loolu nag ci la Cheikh Abdou Samad Mbacké euh, amale bis bi ñu koy rafetlu bu baax a baax di ko ci sant mu war a nekk nag ay jotaay yu bare bii benn rek la ci ñu ciy ànd ak boroom xam-xam di jàngalekat di kilifa di Cheikh Ahmadu Sëriñ Ahmadu Mbàkke moom Daarul Muxti duñ fi nekk di wax mooy kan ak mooy kan ndax yaakaar naa ni ñi ñuy topp miin nañ ko ci jotaay bi yu mel jotaay yu mel nii dañ koy jox rek mu nuyoo laataa ñuy wax euh, ci lan la ñuy waxtaanale kon sëriñ bi ñu jox la nga nuyoo euh, mbokk yi ñuy ànd ak ñun jotaay bi aoudu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di siyaar bu baax sama sëriñ bi ma toogal di sëriñ Cheikh Mbacke ñan ak sama kilifa gi nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Abdourahman di jaare ci ñoom di siyaar mbooleem borom xam-xam ak kilifa yi ci jataay bi yépp di siyaar itam Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne moo nu defal tawféex yi dajale nu ci bërëb bi ci jamono ji ngir fàttaliku ñibbisig sëriñ bi ku ne xam na ne demuk sëriñ bi ca géej ga diine jëpp a ni cheikh mouhamad abdallahi alawi wax ne layaalin biha diinu lxanifiyu du asri ala saahiri lsawaami fi lqarri walxarri bakaahu jamiu lmuslimina kama bakat ala saxriha alxansaawu baada tawaa saxri ñëpp jaaxle ñëpp tumuranke diine ji ci boppam mel ne dañ ko tëj kaso bi mu ñëwee nag ci la tijjiku ci la jàmm am ci la xéewal am ba gis nañ Cheikh Saadu abihi diine ji ci boobu la ndokkeel wax ne hani an li da diini alxaribi alladi gada yatiihu sururan minhu waftixaara Cheikh Mouhamad Abdoulaye Alay wax ne fa kam sarra min qalbin xasinin qudumuhu wa kam surra min xayin wa kam surra min misri kon bi mu ñëwee ñëpp a bëggaat diine ji tinkiku xéewal am jàmm am mu nekk xéewalug ñoñam ijaar rujuu'i ila qawmi saadatana kon loolu bi mu nu dajalee fii ngir nu fàttaliku ko dundaat sëriñ bi dundaat itam lenn ci am njàngaleem lool nangu ko ci sant bu baax ci tawféex jooju di ñaan yàlla mu fayal nu ko te nangu liggéey bi ci daraje sëriñ bi Ahmad euh, ci kàddu yu rafet yu matt yooyu euh, ni ko waxee sëriñ bu mag bi tukki bi demoon kilifa yi boroom xam-xam yi ndokkeel nañ ko ci eh, kañ ko ci loolu nag buñ koy def dafa tollook ni dafa nekkoon kilifa diine ci turu diine lañ ko ko doon defal defaluñ ko ko ci alal ju bare defaluñ ko ko ci aw askan waaye ci kilifa diine gi mu doon ku wax diine nag wax pas-pas kon tomb bi ñuy indil tey mooy sëriñ bi ak tawxiid pas-pasu lislaam bi nekkoon ci moom Euh, ban taxawaay la ci am ñu bëggoon ci tàmbali bi rek nga wax ñu jan gëdd la joxoon tawxiid mooy pas-pas ban gëdd la ko joxoon ak tawxiid ban solo la am sa boppam ndax bala ñoo xam gëdd ñoo xam ban solo la am ba noppi nga waxaale ñu ko ci ñaar jërëjëf sëriñ Cheikh Mbacké sëriñ bu mag bi ku ne xam na ne ku wéetaloon suñu borom la ku fonkoon suñu boroom la ku jeexoon ci suñu boroom la itam suñu boroom moo digle ñu gëm ko ci alquranul karim digle itam ñu jéem a xam maanaa yi nekk ci laa ilaha illa allah wax ne faalam annahu laa ilaha yi nag bu ñu seetee ki ko jëmmal dëgg-dëgg ndigalul suñu borom loolu yi nga xam ne moo jëm ci dund pas-pas ak gëm yàlla ak wéetal suñu boroom bañ ko boole dara saxalal ko mbooleem li yàlla ci moom eh, soril ko ak sellal ko walis mbooleem lu ko lu ko war a sori loolu dañuy gis ne sëriñ bi mooy kii ko gën a def Sëriñ Tuubaa ngëm yàlla gëm yàlla moom dafa da ko jàppoon ne teraanga la ko suñu boroom terale akramanil mu'minu bil imaani inda zuhuri shirki fi zamaan yi dafa defoon tawxiid muy diineem wax na ne diiniya tawxiidu ilaahi bi sunnatil maaxi anil wax na ne itam diiniya imaanun bi dil wujoodi man kaana lii bi fadlihi wal joodi kon dafa wax ne sama diine mooy wéetal sunu borom tabaaraka wa taala ak gëm sunu borom tabaaraka wa taala àgg na ci wax ne li muy fàggu ci àdduna di ko am la ci gën a rëy mooy tawxiid maanaam kasbiya tawxiidi wa madxi lin nabi maanaam buñ seetloo buy wax ci yónnante bi day jëm ci tagg ko ak kañ ko jëfandikoo waaye wax ci suñu borom tawxiid lay jëfandikoo wax na sax ne ngànnaay li nga xam ne moom lay xeexeek noonu yàlla yi ngànnaayul tawxiid la sayfi alladi yafritu la man sallasu tawxiiduhu fa huwa al ilaahu al wax na itam jubbanti ak gindi gi nga xam ne moom la ko suñ boroom gindi ci tawxiid la ko jaare hadaniyal ahadu bi tawxiidi lépp lu muy def sax léeg day wax ne tawxiidam moo moo ma moom moo ma ca suub fi ne tag gi mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne tawxiid moo ma ci dugal moo ma ci suub yuqayidu nii li matxihi tawxiidu wa anka yaa akramu laa axiidu àgg na ci wax ne tawxiid sama mbirum bopp la muy wéetal suñu borom nee na maa ko moom li wax ne mallaka ni tawxiida rabbil ahadu muskaana lii bi qul huwa allaahu ahad Sëñ moo doon jëmm joo xam ni léppam da koy askanu suñu borom li nga xam ne moom la am ci ay xam-xam sax day wax ne sunu borom moom ma ko xamal allamani naxwa maa al aruudi man qaada lil adama fii qariidi maddaliyal bayaana bil maani zul maanawiyati ak fi mu wax ne warastani fiqhal imaamu malik nga xam day wax lu ci ne day wax ne sunu borom moo ko defal mbooleem xam-xam yi nga xam ne moo ko am moom moom la ko yàlla defal te mu sonn ca lool nag daj ca lu ne ba am ca tawféex ju kawe waaye teewul da koy askanaat sunu borom tabaaraka wa taala dox bi muy dox day wax ne ci biir suñu boroom lay dox fi ne moom lañuy gis muy wax ne fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu nga xam ne day mel ni moom génnut suñu boroom ci genn wet suñ yonente bi sax bu koy wammat ndax suñu borom moo ko booleeg yonente bi waaye day wax ne wa qaadanii ilayka yaa rabbi bika wa bika lahoo bi xubbika nga xam ne ribtu bihi fiika ilayka minka abdan xadiman wa raditu anka biir yooyu neexuta lijjanti ci damaayir yi nga xam ne moom lay jëfandikoo waaye day wane ne léppam ci biir suñu borom la àgg na ci wax ne xolam tawxid rek moo ko dëkk lam yanxu qalbi gayru tawxidil malik lu dul tawxiit wéetal suñu borom mënta dëkke xolam moo tax ñu gis waxtu wu ne ci biir mbindam muy saxalal suñ borom mboolem lim moom amantu billahi amantu wa wajhi uslimu abdan lahu wa linnabii axdimu loolu wax na ko ci bërëb yu baree baree bari di ko seereel itam li nga xam ne moom la yónente bi wax ne nañ ko ko seereel te mooy shahidtu anna allaha rabbun waaxidu wa li janaabi laa yamiilu jaaxidu loolu wax na ci lu baree bari ashhadu anna allaha jalla wa ala huwa al wa badat lahu lula ashhadu annaka al ilahu qataan wa darari qablu qataata qataan shahidtu annahu al ilahu waxdahu loolu wax na ci lu baree baree baree bëri di wax ne yàlla benn buur eh, la boo xam ni moo yeyoo jaamu allahu rabbi ahadun allahu alsamadu alladi badat ulaahu lam yalid illaahu wa laysa bi walad xalaqa kulla walidin wa ma walad laa li wujudihi ibtidaa wala intiha muxaalifun wa zuxinan an ijtiha al mulku walhamdu li rabbi waxda kama lahu jalla wa azal waxda di wax ne moom yàlla xamalut xamut ne maanaam jëmmi kum bokkal dara la xamut ci moom daa xamut ne maanaam da kenn ko xam ni suñ borom wéetam gi daal da wax ne moom laa xam xawma lenn lu lum lu mu kenn alimtu anna allaha la sharika lahu fii ay shay'in quttu tawxiidi lahu wax ni itam toroxlu itam kenn rek laa koy defal muy suñu borom zulli la zulliya lil fardi alladi lam yalidi wa laysa mawludan itam ci suñu borom la ko doon def wax ne anta al wakiilu alladi iktafaytu bihi fi dafci wal jalbi anta wakiili fa alayka attakil wala yadiicu man alayka yattakil kon wakiirlu ci suñu borom képpit la ko daa def jël léppam itam féetale ko suñu borom tabaaraka wa taala li wax ne summa ilayka laa ilaa siwaaka qad sirtu lamma lam ajid sarwaaka mufawwidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka fii mu teg euh, tawxiid ban solo la am ba tax mu teg ko ni nee na mooy diineem mooy teraanga ji ko yàlla teral mooy ak moomeelam moom rek mooy nekk ci xolam leneen nekkut ci xolam ban solo la tawxid am ba tax mu mu kii loolu moom loolu moo tax am waaw solo si tawxid ku ne xam na ne mboolem yonante yi nga xam ne ñoo mas a ñëw sunu borom lam leen di digal mooy nañ ko gëm te jaamu ko te ko tawxid mooy li jëkk ci diine mooy li nga xam ne sëñ sëñ Tuubaa dafa wax ne booy jàng sax moom nga war a jëkk a jàng ndax moo jiitu te euh, dara féete ko kaw itam te boo ko xasee amit li ëpp ci diine moom matal nga ko la ca des rek mooy jéem a sellal la ca topp kon tawxiid dafa am gëdd gu rëy day jeexital ci jëf di jeexital ci lépp ci nangu maanaam gëm yàlla ku ne xam na ne sax imaan moom mooy xaaj la ci diine boo xam ni nit ki du jug rek àgg ci gëm yàlla gëm gu mat islaam mooy jiitu xaalat al arabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu na loolu dama cee bëggoon ci kanam ma ma doog cee agsi waaw waaye dama bëggoon a feeñal rek jëmmi sëñ bi gëdd gi mu joxoon suñu boroom ak rëy gi suñu borom rëyoon ci xolam màgg gi nga xam ne moom la suñ borom màggoon ci xolam mu doon mu feeñ ci ay cëram ak jëfam yépp itam àgg na ci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 walaa yakunu lil wara laysa yakunu fi jamil aalamin muassirun fi asarin ma ba tax na képp ku muy jàpp suñ borom ay tax ku muy bàyyit it nee na ci sa diggante ak sa borom moo tax la lu ca xew moo tax mu bàyyi la bihi uwaali wa bihi uaadi wala bihi uaadi wa bihi uwaali buñ gisee itam dundam gépp da koo tagg suñu borom tabaaraka wa taala yu bari yoo xam ni da ko def ci tagg suñu borom ak kañ ko am na xasida gum tënkee laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallama wax na fa yu bari ci kañ suñu borom akrim bi mugnin xafidin la sharika lahu fi lmulki walhamdi lam yulad wa lam yalida allahu jalla ilahun la nadira lahu qataan wa man bi siwa da jaa qad fanada lahu lsamawatu wal arduuna jumlatuha ma shaa kaana wa ma lam lam yakun abadan allahu rabbun jalilun malikun ahadun noonu la ko toppee ba xasida ga jeex doon sellal suñ borom it ci mbooleem lu yëlul ci moom wax na ne dababtu li xayrillaahi maa lam yaliq bihi wa dabba li xayri dahra mawlaaya xussadi dana wax sax ne man mënuma noppi ci tagg suñ borom tabaaraka wa taala yallaahu yaa xayu alladi laysa yamuut maa lii an ithanaa alayka min sukuut fa kayfa askutu an ithanaa alayka yaa dal ardi wassamaai am kayfa askutu an ridaay am kayfa umsiku an sukri waqad anamta bil xayri lkathiri ya suñu borom wa taala li wax na ila alladi ma in lahu min kulliyati loolu it gis ci biir mbind na muy lim mboolem lim am lépp di ko jox suñu borom lahu dëhra niyaati noonu noonu la ko toppee lu ci toppate lahu irtixaali wa ilayhi sakani wa kaana lii fi mawdici wa maskani am na sëñ Mët Lamin Jóob da nga ne wax na ne buur bi mas na ko woolu mu bind leetar tont ko ne ko qul lil amiri astaxyi an taraani malaikatullahi taxmiluni aqdaami ila malikin gayrillah waxal buur bi ne ko man de dama ruus di yëkkati sama tànk bii di dox ay jéego jëm ci buur bu may yàlla loolu la rus malayka yi di ma gis loolu la rus na ko taalibeem yii sëñ Basiiru wax na ne mas na ne wax ne képp koo xam ni adduna ak alaaxira addunaa la ñor na nga dem bàyyil ma fi daara ji koo xam ni alaaxira la ñor bàyyil ma fi daara ji te dem koo xam ni adduna ak alaaxira la moo la ñorit bàyyil ma fi daara ji te dem koo xam ni yàlla kese moo la ñorit nga toog moo tax fi mu ne bari na loo xam ni wolof yi dañ ko yàgg wax waaye da koy jubbanti ci wax am na ku may nettali rek démb ne sëñ bi dafa am ku mas a dégg ku ne bu lëg lekkee aloom na ko sant cooy sëñ bi ne loolu day du wax wax ju yàqu la ndax aloom maanaam maanaam coy yitteem du woon lëg lekk aloom gii lëg kay bu lekkee aloom na ko sante buur bi nga xam ne moo ko rotal nga xam ne ci ab dogalam la la rote gis nañ bi muy jàngale euh, euh, baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne bu nit ki jullee moom lay def wax nañ ne am na ku ko net li démb ba tey ne danaa wax ne dangay nga yéene ne saa borom fas na maa yéene daq lépp loo xam ne xam nga subhaanallah ñëpp dañ koy dañ koy tekkee maa ngi sorel sunu borom lépp lu yelul ci moom moom nag day wax ne da ngay yéene ne fas na maa yéene dàq lépp loo xam ni xol faboon na ko jëme ci yow ci matadi te mu dàqu dàqu na faw te sax dàqu na njëkk mbindeef yi dàqu na teewug mbindeef yi dàqu na faddug mbindeef yi dàqu na démb dàqu na tey dàqu na ëllëg doo ko wax subhaanallahi juróom fanweer ñett nee na boo ca noppee nga ne saa borom fas na maa yéene lépp loo xam ni xol faboon na ko jëme ci yow ci mat te mu sax sax na faw te du dàqu sax na njëkk mbindeef yi sax teew gu mbindeef yi sax mbin eh, sax fàddu mbindeef yi sax na démb sax tey sax ëllëg doo ko wax alhamdulilah nee na fanweer ak ñett boo noppee nga teg ci ne daal ne loolu lépp nag taxul ma jox ko li yelloog moom ndax ëpp na ko fopp te mës te mës la dañ di ko ëpp ëpp na ko njëkk mbindeef yi ëpp na ko teewug mbindeef yi ëpp na ko fàddug mbindeef yi ëpp na ko démb ëpp na ko tey ëpp na ko ëllëg léegi doo ko wax allahu akbar fanweer ak ñett dal dina nag bo dal dina nag li yelloog moom ci lu mbindeef mën a tudd mooy baatub laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dañ xool googu sellal suñu borom nga xam ne da ko wax ci wolof yu leer nañu kenn ku ne mën koo dégg mën koo teewlu te dara gënu ko kawee ci kennal suñu borom ak ak sellal ko kon sëriñ bi noonu la demee woon gis nañ tubaab yi ba muy jëflanteeg ñoom tooñ gu rëy lañ ko tooñ daanañ ñëw ci kër gi dugg ci biir kër gi jaxase bagage yi di wisit ak lu ne ñu def ko waaye bu ñu masaa génn dañ koy gis muy déeyaale ak borom di wax suñu borom ne ko najjaytanii min alladina sallasu wa fi mataa'i wa duyóori baxasu gaa ñi de ñëw nañ lañ lañu sama bagage yi waaye nag yaa ma musal ci ñoom moo tax diiru mu nekk tubaab yi itam gis nga waxtu ne lum jaaxle suñu borom lay dellu naa day tuhu jëlla la daa unaasi taatuhum isyaanu rabbi waaw bi nga wax nga dëgg. Euh, euh, jattuñu ba ñu ah. egg ci yeneen tomb yi. Mm. wax nga ne ñu kon euh, tawxiid mooy gëm yàlla gu sell. Mm. mooy fo bu do bu diine doon néeg mooy fondement bi. amul sikk bu dëgërul néeg bi du taxaw. Mm. ba tax sëñ bi teg ko fi mu teg wax ci lii mu wax waaye lii mooy wax ji lii wax la nan la ko dundee nan la ko jëfee. waaw ni mu dundee tawxiid mën nañ ne da ko jëmmal ci ay. ci ay jëfam da maanaam da ko dund ci xolam ci kaw bëgg yàlla ak ubodiya mooy dund li ñuy wax ubodiya diggam ak boroomam loolu yi nag moo feeñ ci cëram ba jëf yu rëy yi nga xam ne xëy na ñu bari yu bari dinañ ko waxtaane ginnaaw bi feeñ ci moom bu dee dund xolam googu nga xam ne moom la ko dund nag mën naa ci indi ñaar te mooy mahabba diggam ak boroomam ak ubodiya ci lu gàtt xam naa sëñ Basiru dafa wax ne sëñ Tuubaa dafa mel ne dañ ko mooñaale ak bëgg yàlla mahabba mooy bëgg yàlla subhanahu wa taala ubudiyya mooy dund ak njaam sa diggante sa borom loolu nag buñ ko waxee maan dafa am luñ ci jublu ndax ibaada mooy jaamu yàlla yi cër yi def ubudiyya nag mooy mooy mooy jaamu yàlla xol yëg-yëgi xol yi nga xam ne moom la nit ki am ci yëg ne moom jaamu yàlla da cee kawe mbooleem ku ñu mas a xam buñ ko sañee wax ku dul xanaa yorante ba sallallahu alayhi wa sallam sëñ Basiru wax ne moom suñu boroom da ko mooñaale ak bëgg yàlla ba mu feeñee rek la melooy bëgg yàlla tàmbalee feeñ ci moom gis nañ guddi gi da da ko da ko yàgg dundal mooy ki nga xam ne mësta nelaw guddi moom suñ tubaabam ba guddi ga mooy bërëb bu ñu mas a demit nee faw mu bërëb boo xam ni bu wéet lay doon boo xam dafay ne di wéet di jaamu yàlla waxtu wu ne dem daa tëju lu bare bare bare bare wala mu dem ci àll ba nekk fa di jaamu yàlla yàlla moom bëgg gi mu ko bëgg fi mu ne te du jaxase nag itam li suñ borom moom ak li yonente bi am gis nañ fu mu giñee ci suñ borom wax ne yaminu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wannabi baadul ahab giñ ci yàlla ne yàlla moom laa gën a sopp lu may moom ginnaaw ba nag rasulullahi laa gën a sopp ci gaañ yi bëgg yàlla mën nañ ne moo doon diineem sax na diini ya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan waaye bëgg goo xam ni da ko teg ci xam li mu wax ne ahbabtuhu xubba alladi bihi araf bëggu ku xam yàlla la ko bëgg ba tax na mësula jaamu keneen ku may moom walastu abudu dawaaman xayraka yittem jëppit mu defoon ko ci suñu borom li wax ne saarifan himmati li rabbi taala sëñ bi mën nañ ne dafa seeyoon ci biir sunu borom ko wa taala buñ ko sañee wax xibtu anil akwaani bil ni nga xam ne mbégam léppam moo doon béggee sunu borom ko wa taala loolu wax na ci lu baree bare bari bu dee ubudu bi itam moom ca njëlbéen wax na ne ba mu jógee rek yitteem mooy wut suñu borom tabaaraka wa taala loolu itam dox na ci ba am ci lu kawe njortam sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nettali na ne am na koo xam ni walla loolu sëñ Basiru sax moo ko nettali wax ne kenn ci ñi nekkoon njëreem ci tubaab yi dafa am lu mu masoon a ñëw di ko sàkku ci moom di ko ca digg itam ne ko loolu de boo ma ko defalee dinaa la fexal ba maanaam nguurug France waaye falal la maanaam téye giñ ko téye woon foofe waaye sëñ bi da ko tontu ne ko yow mi am yitte waxal sa yitte ñu ñu dimbale la ci lañ man waaye man jenn yitte laa mas di am mooy yàlla subhanahu wa taala te fi mu ne nii dafa am naa ci lu doy sëkk kon man mosuma amuma jeneen yitte moom kon noonu gis nga turam mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sammaytani qataan bi abdika alxadim yaa man yaquulu lii bushaaratin ta doom wax na itam ne eh, nu musta maanaam bul jot mukk ne man keneen laa ko may man danna anni xayru abdillahi wa xayru xaadimi nabi fasaahi waaw musta nangu ku jàpp ne turam wi ko gën a neex mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wax sax ne loolu mooy sama daraja darajati kawniya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi sàkku na suñu boroom itam ba tey mu seereel ko ubodiya boobu washhad liya al bi kawni abdaka xadimahu inda jamihi inda jamii jundika sàkku na mbindeef yépp it ko loole wax na ne yaa jumlatal xalq ishhadu lii yawma fiihi yaxuuzul mujrimuuna lawma bi kawniya daareeni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi muhibba kulli muslimin wa muslima mubghida kulli mujrimin wa mujrima katabahu ahmadu da salaati ala nabiyillahi di salaati mooy yéen mbindeef yëpp maa ngi sàkk ngeen seereel ma bis penc ëllëg buñ fa taxawee ngeen seereel ma ne man kat jaamu bi yàlla laa woon bu doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg jullit ñëpp jullit yu góor yu jigéen ñi bañ nag képp koo xam ne kuy tooñ la loolu itam seeraloo la ko sax nasaraan yi nga xam ne ñoo ko jàppoon inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra te yaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu daa tabarru'i min kulli man bil kufri du tajarru'i wal tashhadu liya bi qawliya maan yowman jamii al aalamina jamaa yowman jamii al aalamina jamaa allahu rabbi zahiran wa batina xaytu akunu raaxilan wa qaatina sàkku ci tubaab yi ne leen kat na ngeen seere ne man kat musuma dañ di jaamu yàlla buy liggéeyal yonente bi dañtalu itam ci lépp lu di kéefër buñ nee ba bis penc na ngeen xam ne man kat li ma mas di wax mooy allahu rabbi zahiran wa batinan géejug maa yomba sax gis nañ mu tiim ko di ko seereloo ne ko nag ma seeral fa suñu borom ne man jaamu yàlla la buy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li yashhad bi kaw ni man yaghfiru dhanba wa kawni xadimal mustafa bahra maa yomba loolu yi nee na ne nee na alkiraamul kaatibuna moom lañ koy seereel loolu dama ci bañ a ñëw muy muy gën gudd mm-hmm. wax ne itam ne suñ boroom ci wam seereel na ko ko wax ne itam ne lépp mit da koy seere kutubi maan wal kaatibaani shawahidun lii wa shuhuru bida ma al bahrayni wax ne mbindeef yépp it xam nañ ko ci moom képp koo xam ne xam nga koy xam nga ko ci moom wax ne malayka yi itam xam nañ loolu ci moom ubudi gi li koy gën a jëmmal sëñ Cheikh maa ngi jégalu ci guddal gi mooy mm-hmm. munaajaat yi nga xam ne moom doon def diggante ak boromam sëñ Tuubaa sëñ Moodu Xadi Sill mbokkum docteur Xaadim bi nga xam ne moo israaf jataay bi sëñ Cheikh euh, Abi bind na ci téereem bi mu bind sëñ Tuubaa wax ne wax na ne sëñ sëñ Moodu Xadi Sill nettali na ko ni mas naa gis sëriñ bi julli gee sol lu weex tàll toog jublu penku tàllal ay loxoom ba fajar jugut nga xam ne xasida yu bari damay jàpp ne ci jataay yooyu la koy talibe jataay yooyu nag jataay yu ubudiya la dañuy gis misaal ci misaal rek léeg-léeg muy waqanteeg suñu borom di wax ne yaa sayyidi ana alfaqiru alfaani wa innani alabdu alxaqiru aljaani ana allaimu albaisu almiskiinu ana aldaifu aljahilu almadinu ana alkasuulu alaajisu alsaimu ana albalidu almujrimu almuliimu ana alakulu wa ana albattaalu wa innani naaimu walqawaalu wa innani alxariisu du ltifaati wa innani sucluuku du lxaajaati ana alladi ma ziltu daa isyaani wa gaflatin fi kulli ma axyaani ana alladi afsada sacyiya alriyaa walujbu walsumcatu tuula dahriya ana alladi qad caaqani almanaamu min an yuraa dahran liya almaqaamu ana alladi qad caaqani aldambu almuliim an almaraatibi alladi kuntu aruum ana alladi qad aaqani al yawma hawa an nayli ma kullun min amsali hawa maanaam nga xam ne xam nga ubudiyya mooy dañtalu ci mbooleem luy xeeti kattan ak pexe lépp nga nga xam ne suñu boroom rek moo ko am loolu yi moo fees gis nañ léeg ci biir xasi lu mel ne xasida gi mu tënke radiyallahu anhum wa radu anhu tàmbalee rabbi karimun waasiun wa yufaddilu wa wasilati abdun lahu ladayhi mufaddalu dayqi wa faqri qad azalahuma maan gis nga day lim wax ne lakka kalkali suñu borom lay jox léppam sama xol bi jox naa la ko yaram wi jox naa la ko yéene yi jox naa la ko tumuranke gi ma tumuranke ci biir noonu yi sax defal naa la ko addiya bërëb ya ma jóge dëkkoon fa itam defal naa la ko addiya laka kalkali laka jussati laka niyati laka gurbati wa mawatini wal manzilu laka malbasi wa yaraati ma lawxiha ولك المداد ومشربي والمأكل هب لي إدامة ما تحب وترتدي في مسكني tuuba allati laka tunzalu anka irtixaali wa intiqaali raadiyan loolu it buñ ko toppoon day gën a gudd léeg-léeg nga fekk ko ci xaalub rida masalan bi muy dem ci géej gi ku ne xam na ne boobu ku me ku mu ci nun ñi ci tumuranke ngay ak jaaxle waaye xasida gam def ba muy dem muy asiru ma al abraari sant la wax ne moom la doon ci njëlbeen ga da ci sant yàlla di wax ne xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li madaxi alladi anhu almadihu qasu qasiru waaye gis nga mu ne loolu lépp nag pexe seytaane la moo sol ci xeli tubaab yi ñu jëfandikoo loo xam ni ci seen njort rek lañ ko teg nga xam ne day mel ne kuy seetal tubaab yi xaruurul wara xarra nasaara bi kaydihi wa dannu zunuuna wa zunuunu xuruuru waaye fa saase rek gis nga bayit wa ca topp daa daal di bay lépp dellu ci suñu borom li rabbil tifaati laa lahu taiban lahu min aldambi wal afaati wa huwa gafuru lahu tubtu min aybi iltifaati li gayrihi wa minni lahu ahdun alayya damiru ba àgg ci li mawlaaya xamdi raadiyan anhu shaakiran ala sirri sirri walxabiru xabiru raditu bihi rabban yusaxiru maa yasa liman saa bit taysiri wa wax ne wa fil qalbi min ridwanihi maa ukinnuhu daninan bihi kon loolu mënoon nañ ci wax lu bare bare ci biir mbindam da ngay gis ubudiye googu di ci feeñ muy dellu ci suñu borom tabaraka wa taala xasida yi yi fi ne boo ci duggoon da jàpp ne maanaam astaghfirullaha ghaffara dunubi liman bil inkisaari ataa wa dul aybi jaliyun falaa al uqala lakin rabbiya sattaaru luyubi fala azaalu taaliba sitrin qaa'ilan wajila astagfiru llaha sattaara luyubi ala ahli luyubi wa munji wa munjihim min a niqami bu ma saa ñaan ba noppi ma jeexale foofu dañuy gis ñaan goo xam maanaam lu mel ne ak durru samin bam mu ba noppi da caa teg waxin yu toroxlu wax yu ubudiya yoo xam day wane ne moom yëgu dara ci boppam lay lay feeñal wax ne yaa sayyidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kuntal akrama falistajib wa li jamii almuxlisin kama waadtana wa narju kulla xiin waxfir dunubi wa taqabal amali ballig salaatiya li xayri lmursali wa balligan sha'ni lahu wajcalhu lii wa liljamici shaafian fi lwajali wala tuwaaxidni wala tuwaaxidni bi kusri lmalali yaa malja'i xata tarudda amali falastu ajhalu bi suui kasbi wa qubxi aybi wa kusri dambi law lam takun akrama min kulli karim lama dacawtuka wa innani la im lakinani lama lama gadawtu afqara min kulli di faqrin wa kunta aqdara min kulli qaadirin ataytu baabaka daa tawbatin wa artaji ikramaka yaa saaxiba algufraani yaa rabbi aljalil faqbal macaadira cubaydika aldalil wala azaalu raagiban wa asmudu laka walaw taradtani yaa samadu fa in taruddani fa ma liya siwaak yaafu wa yarhamu huna wala hunaak wala azalu laa idan bika abad wa bi rasulika safii lmutamad boo ma bunt bi daal sa bunt maa ngi fi taxaw rek di la yaakaar ci lépp boo ma daqee nag awma feneen fu ma jëm xam gis nga waxee ñu torox la te borom du ko daq mukk jërëjëf sëñ Ahmad leer na xam naa liñ ci indi moo gën a bari loolu sax wane nga ni dafa jeex tàkk ci bëgg boromam wane nga ni tamit amul benn soxla jenn soxla judul boromam sonn na lool tamit ci jaamu ko ak bëgg it nit ñi seedeel ko ko ci ni moom jaamub yàlla la ci ni moom it liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la loolu yemale wu ko ci bi mu nekkee ci njabootam yemale ko ci bi nekkee gone ak bi mu nekkee mag waaye dundam gépp la xëy na loolu moo tax sëñ Bachir di wax ne xuliqa rabbaaniyan dañ ko dafa jóg rek jógtee bëgg yàlla te nekk nitu yàlla gis nañ xaside yi nga fi indi euh, fu muy toroxloo di wax ne man ku bari nelaw laa ku bëgg aw ñam laa ku tayel laa ku lii la ku laa laa yoo xamante ni euh, dafay firndeel euh, ni sufiyanke yi ñoom seen digg ak seen boroom duutuñ ci gisati seen bopp waaye doonut ay melokaan yu nekkoon ci moom sax waaye nag toroxlu ak wane euh, wane wane wane nituk sofiyanke ni moom euh, dafa weesu na yooyu daal waaye dafa effacé wu ak ak nekkam ci boppam la gisatul ci boppam ndax toroxlu mooy mooy jeexitalu euh, jeexitalu toroxlu loolu rek la ci jublu moo tax muy wax yooyu yëpp waaye xam nañ ni melokaan yooyu muy wax su nekkoon ci moom lii mu réaliser du ko réaliser kon dund na ko bind na ko sàkku na tamit mboolem lu yàlla bind mu seedeel ko ko waaw ndax loolu dafa yemoon ci jëmmi boppam eh, njaboot gi topp ci ginnaawam ndax da na bàyyi ñu mel ne ay lëg rek sànni leen ci lay bi walla am na ci taxawaay jëm na koo def ci ñoom te loolu mooy tomb bu mujj bi ndax li ñu dese ci ay minutes bariwut waaw jërëjëf sëriñ seex Mbacké sëriñ bu mag bi ni mu dundee tawxiid ak gëm yàlla noonu itam la ko jëmmale ci mbooleem ñi mu doon yar bëggoon na maa sax dugg ne tawxiid xëy na loolu bu ñu ko waxee day gën a gudd mooy lim ci tànnoon mooy tawxiidu ahli sunna wal jamaa bi nga xam ne moom lañuy askan al imaamul ashari ak ñi dëppook moom abu mansuurul maturidi ak mboolem ñi dëppook ñoom waaw loolu li ci bëggoon a feeñal rek mooy mm-hmm. rasulullahi xam nga jamonoom diine jëpp jenn la dafa jàngale ci xadis sayyidina jibril ba al iman islaam ihsaan iman nag boroom xam-xam yi gëstu ko dajale mboolem li ci rot tudde xam-xam mu xamu tawxid islaam it ñu gëstu mbooleem li ci rot tudde xam-xamu xam-xamu fiq ñi koy gëstu ñu tudde leen al fuqaha ihsaan ñu dajale ko bind ci téer yu baree bari ña koy gëstu ñu tudde leen as suufiya xam-xamu tawxiid nag dafa bari école waaye école bi nga xam ne moom mooy ahlu sunna wal jamaa nga xam ne mboolem eh, ahlu sunna yëpp maliki yëpp saafiya yëpp xanaabila fudala wal xanaabila ni ko taaju dina subki waxee ak sawaafiya yi ak axnaaf yi nga xam ne ay maturidi lañ ñu ñëpp pas-pas biñ ne moom la sëñ bi jàngalewaat leeral ko nga xam ne ginnaaw abu abul hasan ashari yi nga xam ne ñetti téeméer atum ak nangam la génn àdduna waaye ginnaawam ñii ñëw ñëpp ci ay borom xam ci moom ci ci pas-pas boobu lañ nekkoon te mooy tàmbalee ko ci ibnu Hibbaan al Busti borom saxiix bi ak kitaabu siqaat ak alxaafis abul xasan ad daara qutni alxaakimu naysa naysaburi abu nuaym al asbahani abu bakar al bayhaqi eh, imaamul xaramayni al juwayni waaw passpass boobu tënk waaw mooy passpass bi nga xam ne gàttal gi rek mooy mbooleem li nga xam ne moom la yónnante bi indi woon ci alxuraan ak sunna si yónnante bi sallallahu alayhi ci lu aju ci gëm yàlla na ko alxuraan indee nga xam ne dugaluñ ci leneen loolee rek lañ jàngale bu dee ci gëm yàlla na ko suñu borom waxee ci alxuraan wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir yonente bi moo ca moo ca dolli qadarihi amana rasul bi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nga xam ne na ko alxuraan indee noonu rek lañ ko jàngale suñu borom it mbooleem li nga xam ne moo yàlla ci moom ñu saxalal ko ko li nga xam ne moo jomb ci moom ñu jombale ko ko gëstu ko def ci yitte ju bare bari moom la sëñ bi doon jàngale lool it sëñ bi moom la dénk mbooleem njaboot gi waaye sëñ bi nag duggul nag ci détails yi xam-xam yooyu nga xam ne léegi si xëy na lañ ko soxla mm-hmm. sëñ moom bu daa jàngale day wax ne masalan dénkaane na ñu fonk tawxiid ak pas-pas waaye day wax rek pas-pasi sunna yi rek loolu lay wax yaa maachara shubbaani in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal fa qaddimu alaqaida sunniya mujaradatin an firan wa mirya laa tatruki alaqaida sunniya wa laazim alibadata almurdiya mm. wax na itam ne nañ wéetal suñ borom loolu la digle luusu luusu bi rabbikum maxa tawxiid yi wax ne tawxiid mooy rësu maal mooy capitalu julit eh, julit bi ak ak murit bi wa baadu fa tawxiidu rësul maali wa di diinillahi mooy ruuxu diine ji li ngay am di ko denci mu jëm ëllëg nee na amul lu ci gën a kawe tawxiid lakin ma tawxiidu xayru duxri li saxsi fi lqabri wa yowma nashri li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufiidu ilmu lmusjala nee na beneen xam-xam boo am te amoo tawxiid amagoo dara boo ko xasee amit nee na mën ngaa ñàkk leneen te du la wàññi dara nee na moo tax li ngay denc mu jëm ëllëg la ca gën mooy am xam-xamu tawxiid mm-hmm. daana wax sax nag ci mu jëm ne jamono jii nii maqaama mi gën a rëy mooy fexe ba tawxiid dëkke sa loolu mu ngi ci majmoa bii sëñ Blaat moo loon wax ne alal maqaamaati inda allahi taala fi hada zamani iskaanu tawxiidi fi l qalbi taalif na itam téere yu baree bari ci wàllu tawxid boobu taalif na ci mawaahibul quddus fii nadmi nasri cheikhina sanosi taalif na ci nadmu eh, beneen boo xam ne umul barahin la ca way taalif na ci faydul ganiyil mugni fii ma ani suluki yugni ak alxidmatul mutahara ak fatxul fattaaxil alimul xabir fii bathi ilmin yu addi ila al ajril kabir ak jaalibatu saada ak lu mel ne jamul maqaamaati allati farra ilayha alqawmu fi sharxi qasidati la taaxudu sinatu wala nawm faydul alim alxabir alwahid fi ma la yasta yustaxna anhu min altawxid ak jësbatu shigaar ak téere yi nga xam ne ci boole iman ak islaam ak ihsaan comme tasawudu shigaar ak tasawudu shubaan xam ne ci téere yooyu day wan ne diine ñetti xaaj la ni nga ko xamee rek da ci am ay bunt ay bunt waaw mm-hmm. waaw wax na nu itam li ñu war a gëm moom suñu tuwaa wax na ne imaanukum an tuminu billahi wa bi jamici kutbihi almunazala wa bilmalaikati jundillahi wa bi jamici kutbihi almunazala wa yowmihi alaxiri yowmi zalzala wa bi jamici rusulihi wa bilqadar min xayrihi wa sarrihi xaytu sada mooy nga gëm yàlla gëm dégg nga malayka yi gëm yonante yi gëm téere yi yàlla wax ci woon gëmub dogal gëm bis gëm wax na itam ne gëm yàlla dëgg dëgg taarif na ko xamle na ko wax na ne al imaanu jazmun bil xaw bil qalbi bi wujudillahi taala wa anna maa siwallahi xalqun wa abdun lahu ca majmua ba wax na ne gëm yàlla mooy nga gëm nga dogu ci sa xol ne yàlla ci boobam ko am la te ku dul moom moo la sàkk neen loolu boo ko defee rek gëm nga yàlla loolu it wax na ci lu baree baree baree bari am na nag sax naa maanaam meneen moom jox tawxid moo xam ni gisuma ku ko ca fekk dafa wax ne tawxid buñ ko waxee dëgg-dëgg du ceegee ni nga dàqal yàlla ay lu ay manqué te ndax nee na yàlla manqué wul ci genn wet nee na manqué gi ci yow la ne ak sa xol boo ko ci génnee rek da ngay gis màggug suñ borom gi ak sellam gi wëlis dégg nga lépp luñ ko war a dàqal mm-hmm. loolu it maanaam mu kawe la wax na itam ne maanaam suñ borom leeral na nu mooy kan wax na ca mawaahibu xudóos ne ilam xabaana allahu rusdan wa saa kaana ilahuna wala shay'a maa wa laysa min cheyin wala fiihi wala fii taxtihi wala alayhi musjala fa laysa maxluqan wala maxsuura wa laysa maxmuulan wala maqhuura subhaana man ajaza xalqan darkuhu wa shukruhu azza wa jalla mulkuhu is laa lahu mithlun wala zamaanu wala lahu jinsun wala makaanu fa kullu ma yaxturu bil baali abad fa bi xilaafi daaka rabbuna al ahad tënk gi mooy suñ borom nanga xam ne moo fi masoon di te dara nekku feek moom bayu kowul ci dara nekkul ci biir dara itam dara gëwu ko dara tënku ko itam amul lenn lu ko féete kaw mbaa lu ko féete suuf amul bërëb ndax moo sàkk bërëb njëkk bërëb di am lam nekkoon ca la ne du ñu sàkk du ku dara mën a gaw du ku ñuy yanu mbaa kuñ mën a not ci genn genn wet moom daal nee na boo ci bëggee noppal da ngay wax ne daal eh, lottu ci xam ko nee na mooy mooy xam ko dëgg-dëgg mm-hmm. ndax amul jamono amul bërëb mm-hmm. amulu xeet lépp lu toq sa xel ba nga jàpp ne loolu yàlla nee na loolu bokkut ak suñu borom tabaaraka wa taala dama lay waaw léegi waaw maa ngi doon ñëw li xëy na maa ngi jégalu maanaam docteur Xaadim bi ma ko waxee barki dem waaw dama doon jéem a dajale li nga xam ne moom la sëñ bi wax ci ci tawxid mm-hmm. mm-hmm. yàlla dogal bokkut sax téere yi mu taalif waaye li ma dajale ci xasaar yi mën na ñeenti téeméeri bayit ñeenti téeméeri xët ak nangam macha allah kon sëñ Tuubaa moom loolu day firndeel mm-hmm. ne moom jàngale na jëmmi suñu borom ak i meloom ak loolu mi ngi ci téere yi bu ci ñëwoon day gën a gudd. waaw mm-hmm. bu dee mm-hmm. yeneen yi ñu war a gëm noonu. Mm-hmm. ak ni ñu ko war a jàppee. wax na sax bayit woo xam dafa wax ne léppi tawxiid mi ngi ci. wax ne na ngeen ko jël jëlee ko ci man te fonk ko. fuuzu bi baytin waaxidin qad qaama maqaama jumlatin turi maqaama. fi waajibin wa jaaisin wa mustaxil awjib ajiz wan fi alladi al aqlu yuxil allahu mawjudun bi gayri mujidi wa innahu muujidu kulli muujadi yàlla na nga xam ne am na te kenn amulu ko te képp ko am moo la amal neen loolu mooy gàttaluk tawxid téere yépp loolu lay loolu rekk lay jàngale mm-hmm. murid yi itam digal na leen ñu fonk euh, tawxid ba muy wax murid bi awwalu waajibin alal murid taxsiiru zaadihi min tawxid la wax murid bi li jëkk ci moom mooy jéem a xam euh, dégg nga am amub yóbbal ci tawxid nee lu muy jàng ak lu muy jéem a xam mu doog ko caa dolli ba tey tariqaam yoonam wi itam da ko teg ci kaw tawxiit fi ne bi mu jàngale teggin yi nga xam ne moom la murit bi war di dunde dafa da caa boole teggini biir yi teggini biir yee ba mu koy wax dafa wax ne nag moo gën a mat a fonk ndax teggin yooyu boo ko ñaawalee suñu borom dalay dàq ci buntam te nee na mbugal mi gën a rëy mooy yàlla daqale ci buntam wa tardu an baabil ilaahi wal xijaab ashaddu min kulli garaamin wa adaab daal di nag teggin nag yépp nag suñu borom mooy misla taarudi walaw bi layta aw laalla aw lawlaa walaw maanaam suñu borom def dara dogal dara nga naan aka neexoon mu defe ko nangam suñu borom daa waroon def nangam nee na loolu ñàkki teggin la sa diggante sa borom dog maanaam taxaw fi kanam benn dogalum suñu borom rek neen loolu dafa bokk ci ñaawel ñaawal ay teggin sa diggante sa borom ba tey jéem a wutuk tànn fi kanam tànnuk suñu borom gi nee na it ba tey ci teggini biir yi nga xam ne moom la ñu war a sàmm mm-hmm. ci la bokk mm-hmm. ak geestu leneen lu ma yàlla wala ragal ko wala jàmbat mbindeef suñu tubaab mës ta jàmbat mbindeef ni nga ko xamee mm-hmm. ak topp yomb yomb yi wala geestu ni ma ko waxee ak yeneen yu bare bare yoo xam ne yoo xam ne. na ko ma ngi ca ko Jinaan léegi léegi waxtu bi waxtu bi dafa dafa jeex. mën nañoo tënk ni kon jàngale na ko. waaw ci jàngale boo xam ne ngir ñu mën koo dund la. Hmm. duggut ci ay weranteeg yu mel noonu. déedéet duggut ci loo xam ne tamit leeral ko ñi aju woon ci ginnaawam xëy na du yomb te da koy sànkal waxtu. Hmm. daf leen a taalifal liñ mën a jariñoo. Hmm. dund ko. mu taalif bàyyi ko fi. kon dafa amoon pragmatisme. maanaam moom. ñu dund ko la moo ko gënoon a yitteel werante bi ak jiñante bi yooyu soxalu ko woon euh, wax na tamit li mu bëgg a doon moom jàmm yàlla liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa mel ne euh, ku wax yenn waxi waxi boppam la ku jëf yenn jëfi jëfi boppam la waaye moom ay waxam ak yi jëfam leer na dafa mel ne euh, taalibe yi tamit jàngal na ñam jamononte woon bind bàyyi fi ngir ñiy ñëw ëllëgam Euh, euh, kon dafa mel ne mbir yi leer na yaakaar naa ni. amul sikk leer na naññi. waaw Sëñ mbiram leer na naññi. léegi léegi dañoo bëggoon dañoo bëggoon. léegi tëj waaw Sëñ ci moom wax na ne. Mhm. barra anil quddoosu min kulli danas. Mhm. mboolem lu dib tër mbaa mu dib safaan. mbaa lu jaarul yoon. Mhm. mbaa lu jiyoog bëgg suñu borom loolu bëggut ak dara Sëñ Tuubaa. lam yanxuni kufrun wala fusuuqu aw shirku naw maa lii adan yasuuqu dara lu di kéefër mbaa mbaa mbaa mbaa ak safaan mhm. maanaam mësta bokkut ak dara sëñ Tuubaa léeg-léeg na nga gis murit bu mel ne man am njuum tey boppam yoo xam ni maanaam matadik doomu aadama moo ko ci sóob wala mu ñàkk sax ànd ak sagoom yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la loolu nag boo ko bëggee askan murit yëpp mbaa nga bëgg ko askan sëñ Tuubaa loolu tooñ gi gën a rëy la mhm, mhm. tooñ gi gën a rëy la sëñ Tuubaa daal jaamu yàlla boo xam ne yàlla gërëm na ko ci ak mbaax la nekkoon ba jóge fi mbooleem ñi mu dajaloon jamono itam seeral lañ ko loolee jërëjëf ba tax na koo xam ne yaa ngi koy tuumaal loo xam ne beneen waaye ko def daal ëllëg da ngeen taxaw fa suñ borom nga te boo moom mu yey la moom jërëjëf kon loolu mooy gàttal maa ngi jéglu bu baax nag ci ñàkk gi ma ñàkk a nosee mhm. eh, mbooleem waxtaan wi ak kii bi sëñ Tuubaa mhm. jeexal ci ne mhm. wax na ci moom ne ak kiifar sax da koo màbb bu doonu tabax da koo màbb moom ba masale ko xëdamtu binyata kafuurin wala kufuurin wa fusuuq loolu wax na ko hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq yàlla na yàlla taas ci barke maa ngi jégalu bu baax di jégaluwaat sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah tabaarkalla jërëjëf jërëjëf sëñ Ahmad euh, waxtaan wi am na solo lool euh, tomb yu bare bare tënk nga ko ci euh, dafa mel ne daal mbir yi ku bëgg a lëntal yaa bëgg lëntal waaye ku ku ku xooli lim bind moom waxal ko boppam dundal ko boppam. Eh, wax taaliba yi ñu jaar ci yaakaar naa ne mbir mi mën naa leer ku bëgg a sa xel nag loolu leneen la kon tawxid mooy diineem tawxid mooy teraangaam tawxid mooy am amam tawxid moo nekk ci xolam leneen nekku ci lu dul lu dul lu dul tawxid te looy doonut lu ko dab dafa gën a àdduna rek jógaale ko moo tax sëñ Basiru wax ko loolu mu wax ni dafa jóg rek eh, ñëw rek nekk nitu yàlla Euh, sant na ko taalibe yi tamit def ak ñàkk def moo fiy am bind na ko fi bàyyi fi dellu ci ak ñàkk ca dellu moo ci am kon yooyu yaakaar naa lu mat a xam la ñoo ngi dellu di la sant bu baax a baax di jéggulu bu baax a baax di sant tamit ñi àndoon ak ñu ci jotaay bi ba beneen jotaay incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah